asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 15 mai 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëgle kaay yi sunu lamb fa la ñuy xëy tey doore ko yëgle kaay bi nag dafa mel ni tey que mu ñu xëy wan daal olof Njaay dafa am lu muy faral di wax ci ay waxam maanaam ku wax moom da daal di feeñ mu mel ni ki nag père Bekaay Mbay moom xëy na wax ci yëgle kaay bi nga xam ne moo di sunu lamb mu nga teg ab séesam bu rafet toog teglante ay tànkam la mu xam ne nag ne na li am ba des daal place Alioune Sarr bii daal ne na même moom mii daal war na ko sax mën a yore maanaam jiite lamb ji père Bekaay Mbay daal la xëy tey moom dong ne am na yeneen ñoo xam ne ay cadre lañ nekk ci réew mi war nañoo mën a jiite mbir mi te itam sax jàpp na ne ñooña mën nañu ko père Bekaay Mbaye loolu la xëy tey wax ko jàpp na tamit am na loo xam ne mu ngi ko yedde Alioune Sarr dana ko li am des daal mooy i faut moom mu xam que ni daal kii di Matar Ba moom dafa gêné wu ci ay mbiram père Bekaay Mbaye moo xëy tey ci sunu làmb moom daal jàpp na ne moom mii mën naa yore mbir ya te ñeneen ñu mel ni moom itam mën nañu ko yore jël place ba doxal làmb ji mu mel ni kon daal waxtaan woo moom loo ci mën a dégg tey yaatu na mu nga ci biir yëglikaay bi di sunu lamb keneen koo xam ne moom ñëw na ci sunu lamb muy professeur Djibril moom nag daal na ñuy joxe wàllum couronne roi des arènes ba tur wa nga xam ne ni moom lañ koy faral di woowe moo ko neexul moo tax mu gis weneen tur parce que nag li sénégalais yi tàmm di wax mooy roi des arènes roi des arènes ba daal jàpp na ne moom la mu gis mooy roi de l'arène daal moo ko gënal professeur Djibril Seck moo xëy tey di loolu keneen koo xam ne ni moom maanaam daal bu seeboo tànn la ko gënal ndax nag li nekk ci kanamam bëri na muy Gris Bordeaux deuxième tigre de Fass wala troisième tigre de Fass boog Balla Gaye 2 Lac 2 Tapha ki nga xam ne nii moo di B52 na ñi ñëpp daal ñu ngi jàkkaarloo ak moom nekk ci palaat moom Gris nag mooy xool kan la ciy choisir ngir fas yéene jàmmaarloo ak moom sunu làmb xëy tey wax nu lu mel noonu ba tey sunu làmb ñëw na ci keneen koo xam ne ni daal moom mooy tête de filu écrit Thiaroye Cap Vert muy amet dem moo xam ne daal yëglikaay bi daal jàpp ne daal ay mbiram des daal day tàng ba ni jër waaye des fois itam mu sedd daal ci diggante boobu daal fa la nekk dafa baagante yëglikaay bi ne na ndam lu rëy la nga xam ne amoon na ko ci ambulance bu Thiès ñu ne déet na waaye mu jóge ci ñu di ko xaarat mu ñëw am nil bu doy doy waat ci diggante ma ki nga xam ne mooy furus bu jàmm gën na waaye amet dem jóge ci ki nga xam ne nii moo di bébé garga dal di koy daan gën koo dugal combat am ak ñu koy xaar ñu far ko reporté tax yëglikaay bi gis na tëdd fi lu Cap-Vert bii daal ay mbiram day tàng des fois ba li yàgg mu sedd guy ba tey moom Ameth Deme moomu yëglikaay bi ñëw na ci moom ak la nga xam ne ni jotagoon na ko def ci carrière am onze victoire cinq défaites deux nil victoire ya colonel Sagna ci jëkk Guinée Tafa 3 Baye Gora El Hadj Diouf Brise de Mer Cheikh Ngiraan Super Jamono Ousa Sow Pape Morlo ak ambulance défaite ya ñi ko daan Mamadou Ndiaye daan na ko Malaw Salas daan ko Aline Seyde daan ko Moussa Dioum daan def diggante ak maam Balla ak ki nga xam ne moo di Farouz keneen koo xam ne moom tamit day dañ ko doon xaar ci loo xam ne ni daal ñëpp dañoo xalaatoon ne tafaatin bu fekkente ne am na koo xam ne mooy nekk numéro deux am numéro deux am wala koo xam ne moo koy succédé ca bawal du kenn ku dul kéwél waaye daal yëglikaay bi moo tey ñëw xëy di laaj ndax ki nga xam ne moo di kéwél bu bawal li nga xam ne nii moom lañ ko fas yéene wala boog moom lañ koy xaare est-ce que mën na koo gérer maanaam statut bi nga xam ne daal mooy nekk numéro deux tafaatin ca bawal est-ce nga xam ne moo di kéwél wala ki nga xam ne tii tey mooy jël place tafaatin bu fa jogee jógee yëglikaay bii sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu kéwél keneen koo xam ne kaay bi indi na ko mooy ki nga xam ne nii mooy Rambo moom nag mbër la moo xam ne daal ñaari licence yu nekk ni moom la amee am na ko ci Sénégal waaye am na ko fa nga xam ne mooy ca Gambia di ab champion yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu ko bu nu jógee sunu làmb dan naan diis dem ba nga xam fa nga xam ne nii moo di record record nag moom tey dafa xëy ñëw ci ki nga xam ne nii moo di Ama Baldé ak ñàkk teew ga nga xam ne ñàkk na koo teew ca kere ba koy juru Modou Lo wa génnee àddina bi nag moo xëy tey ñëw samp ci ab laaj am na ñoo xam ne ñu ngi cay joxe seen ay xalaat moo xam ki nga xam ne nii moo di Serigne Ndiaye la yore wallu mystique ca Modou Lo Serigne moom jàpp na ne li Ama Baldé def daal dana loolu avion la maanaam gis-gisam la parce que tamit nit ku ne am nga droit def la nga gis waaye li am daal Serigne na daal nii Modou Lo sax jotagul avance nee na est yooyu maanaam daal moom moom Serigne Ndiaye moom gis-gis boobu la amee keneen koo xam ne mbir gis-gis ba mu ci mooy jaan jilaas nee na day bu nekkoon place ama nii ama defit dong lay def ndax nag làmb dafa sew te doy waar nee na la may def mooy man ama jaan jilaas ay wax de nee na dama yëkkati sama téléphone woo ki xam ne moo di Modou jaale ko su mbir ya nag buñ bëree ba pare ak nu résultat ba mën a demee ma sol sama aw daal dem ba ndax doy waar moom ñëw na ca mbir yooyu wax ca ne na li am ba des moo tax ba li nga xam ne moo ci am am ci waaye jàpp na ne làmb sport la bu jeexee day daal di jeex waaye moom Jules Baldé daal gis-gis booba la ca am rëg-rëg moom la mu ca gis mooy ne na bu nekkoon place u Ama moom ne na kon moom daal nii Ama def moom du def moom rëg-rëg moo xëy tey wax loolu ndax jàpp na ne làmb ji benn lañ te ñoom ñëpp ay mbër waaye moom rëg daal la mu gis mooy bu doon moom la daal du doxal du doxal ni nga xam ne noonu la Ama doxale keneen koo xam ne nii moom na muy doxale wax na ko muy Babacar Diop deebu arbitre nekk ci làmb ji ba tey mu ngi ci record moom nag daal ci wàllum ndogu yaag yu mel ni ki noonu la ñëw nee na moom daal lekk moom da koy teel a def ndax lam ci jublu mooy day bëgg daal di teel a diseere maanaam la mu lekk rees moom Babacar moo wax loolu waaye itam daal wàllum ab soppak yu mel ni ki daal nee na ci wàllum ndogu yi nee na loolu neex na ko trop trop waaye itam wàllum reer ba daal jàppal suppu kànja nee na palaam la moom Babacar Diop mooy wax wala li nga xam ne nii mooy palaa bi ñuy wax paella baaba kër Diop moo xëy tey wax lu mel ni ki noonu ci yëglekaay bi nga xam ne moo di record Payala ak Sopo Kanja may laaj bu ci dàq. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xamee nag tey ñu ngi nekk euh, vendredi hmm, euh, vendredi 15 mai 2020 waaw sunu làmb fi ñëw tey ak journal record. waaw bu dee suñu lamb moom suñu papa Bécaye Mbaye tey moo ne ci xët bu njëkk wa di wax nekk daal moom sax moom père Bécaye war na mën a jël pale la su Alioune maanaam jiite CNG bi waaw loolu nag yaakaar naa ne su ko waxee duñ ko ko aaye parce que li tax mooy yàgg na ci lamb te kilifa la goo xam ne tamit ku ne gis na ko muy exemple ci li muy liggéey di exemple ci réew mi kon yaakaar naa ne euh, comme loolu moom tey defe naa bu xëyee wax ko am na fa mu ko teg li ma moom la xaw ma ku mu mënta doon ah kum ci mën a doon daal yàlla na a demee itam ah yal nañu am koo xam ne dina fi def lépp li fi defoon moom Alioune moo xam suñu papa Bécaye la moo xam keneen ku mën a doon waaw moom Bécaye peut ba tey yemu ci parce que jàpp ñu ne tey a maanaam euh, ku nekk rek am na ku la war a mën a remplacer ci la ngay def kon daal li am solo moom ñun dañuy ñaan di ñaanal rek que ni saa fi jógee ba dem joxe làmb ji ki ñu koy teg ci loxoom yàlla na fi def lu raw li fi docteur Alioune Sarr doon def pour que a jëm fi mu nekk nii defe mooy l'essentiel waaw professeur Djibril Seck moom tamit gis nañ ci journal moom ne na li mu gën a préféré daal ci couronne roi des arènes bi mooy roi de l'arène que waaw que ni roi des arènes moom loolu la gis daal wax roi des arènes mais ñuy wax roi de l'arène moom loolu la wax waaw nag xam naa ñi je gën ñi ma ëpp jàng ak yooyu nañ ci xalaat ñoom ba xam loolu mu wax noonu maanaam euh, lan mooy différence bi quoi waaw maa ngi laaj loolu daal Gris Bordeaux moom adversaire yi ne ci gannaawam la yëglikaay bi ñëw tey moo xam Bombardier la Lac de ba ci Tapha moom mooy choisir kon Gris nga yaay choisir noonu la ko sunu làmb xëy tey waxe Ahmed Deme tamit ñëw nañ ci moom ak ni affaire di doxee tàng sedd affaire yu mel làmb nag moo dem ne a mën a taxawee bu a xale la am na talent kon na gën a góorgóorlu gën a liggéey moom kéwél yaakaar naa ne bu ko defee mën na ci génn waaw ba tey bu ñu demee nag fi nga xam ne moo di record moom la ñu fa fekk mooy mbirum euh, desoo papaay Modou Lo ak ñàkk teewu Ama Balde am nañu ci joxe seen xalaat ku mel ni Serigne Ndiaye di yore wàllu mystique ci Modou Lo moom la ma gis mooy

moom day dem muy loo xam ne daal ku nekk ak ni nga ko gisee waaye loo ci mën a dégg daal ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi te lépp Sénégal la waaw loolu moom mooy li am bu dee wàllum ndogu mi la nag tey rubrique boobu lu leen record di indil Babacar Diop moom la mu taam wax na ko waaw moom ne na daal bu dee lekk bi moom day teel lekk pour mën a digérer arbitre bi ne ci làmb bi ñu koy nuyu di ko ziar wax na tamit nga xam mooy suppu kànja ak paylaar neex na ko lool lool lool waaw kon Babacar sama turandoo ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu arbitre yëpp di leen ñaanal jàmm rawatina suma soppee ki nga xam ne nii moom mooy Malick Ngom di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Ebola bi yàlla na dem ak Ebola wala corona sax lay wax yàlla na lépp dem maladie yooyu yëpp yàlla nañ fi jóge ñu bañati ko dégg barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais tamit gis nañ tey ci record bu dee wàllum ndogu mi la nag tey rubrique boobu lu leen euh, record di indil Babacar Diop moom la mu taam wax na ko waaw moom ne na daal bu dee lekk bi moom day teel lekk pour mën a digérer arbitre bi ne ci làmb bi ñu koy nuyu di ko ziar wax tamit li xam mooy suppu kànja ak paylaar neex na ko lool lool lool waaw kon Babacar sama turandoo ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu arbitre yëpp di leen ñaanal jàmm rawatina suma soppee ki nga xam ne nii moom mooy Malick Ngom di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Ebola bi yàlla na dem Ebola wala corona sax laay wax yàlla na lépp dem maladie yooyu yëpp yàlla nañ fi jóge ñu bañati ko dégg barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais tamit gis nañ tey ci record gis nañ ci record parce que il faut ñu laal ci mu ci côté football bi Samuel Eto'o diggante ak El wax ja na xaw na dis Eto'o yaakaar naa ne yéen ñaa ñëpp ay africain ngeen am na loo def pour Afrique waaye olof nag dafa am lu muy wax lu a jege gën àll bu ne la fay ñun moo fa dim ñàkk ñun Sénégal El Hadj Diouf la ñu am di ko titre ci wàllu football dafa defal lu ne réewam ci côté football mook ay moromam ba tey ñoom Sadio Mané ñoom ñoom Gana Gueye ñoom Kalidou Koulibaly ak ñu mel ni ki ñooñu mais di wax daal yéen a bokk Afrique na lépp rafet daal na lépp rafet maa dàq football wala maa dàq li loolu du lu méchant quoi pour man kon tontu yi nay gën di rafet rek yàqu si dara yéen ñëpp c'est des Africains mais nag hélas la ñu am bu wàllu jotee moom la ñuy waaje parce que nag mooy sunu mbër mook ñoom Sadio ñu mel ni ki noonu ndax bu ñu jëlee coupe wala ñu jël ballon d'or fii ci réew mi di Sénégal nag fi leen koy indi te ragal pété nag day xañe wërsëg donte ñun ñëpp ay africain lañ waaye ñun nag ay sénégalais lañu yàlla na ñëpp am jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke yowmul jumaa ji